xidda mooy diir bi nga xam ne bu jigéen ji tàggoog jëkkëram moo xam yoon moo tas sëy ba wala jëkkër jaa ko fase wala jëkkër jaa faatu diir ba nga xam ne moom la war a toog bañ mën a wóorlu ne kee mu tàggool ëmbi wucca loolu diir boobu moo tudd idda ndaxam nag du tee sax bu nu wóoree ni ëmbi wucca itam dañ nu koo digal rek saa yu waree iddawu rek daal di iddawu léegi bu doonee gone ba du mën a am doom wala mu magee ba naagoo ëmb itam du ca dara dañ nu koo digal rek fu war a iddawoo rek na iddawu bu fekkoon ni tubaab yi am nañ ay jumtukaay yuñ mën a seete seete ca ba ne moom nii kat kee mu tàggool ëmb ja itam te nu wóor na nu du tax ñu sukkandikoo loola ndega war naa iddawu ci yoon rek na iddawu lim tuddi ab dund nag day bëgg a wax fa nga xam ne fa war a joxe dund ak fa nga xam ne waree su ko faa joxe ma ni ki ku ñu fase ndax des na ko jox dund wala déet ak bu jëkkëram faatu nu muy dunde fu muy jële ak dund ak yu demee noonu muy an nafaxatu dund ba al istibra u laablu nag la ci gën a yaatu ca bu muy taalif téere bi mooy booba xeetu jaam dafa amoon soo amee jaam bu jigéen nag am gu yees wër laa jekki-jekki joteeg moom war nga koo wóorlu laablu ko ba mu wóor ne andaaliwul ci yow ab ëmb waaye nag bokk na ci xeeti laablu yi nga xam ne ba tey mi ngi fi te du fi jóg mukk mooy jigéen buñ joteeg moom jote gu aay moo xam day joteeg njaaloo moo xam day joteeg jaawale warees na ko laablu ba xam jote googee ëmb na ca wala ëmb ca nga xam ne bu fekkee amoon na jëkkër bu jëkkëram joteeg moom te laabluwuñ ko ba xam ëmb na wala ëmbutam déet bu fekkee ëmbutoon jëkkër bu ko kenn takk te teeyluwuñ ko maanaam te teeylu wuñu ko ba xam ne moom ëmbiwut ca jote googee léegi na ndegam moom amatul teqale gor ak jaam ñëpp ay gor lañu man nga ne kon képp koo xam ne xeetu njaaloo googu dal na ko wala jaawale ci xeeti jigéen yu mën di doon day toog jur bu toll ne jurub idda rek moom lay toog ñu mën caa xame ba xam ambi na ca jote googee wala ambi wu ca ba muy taaliseer bi booba góor dafa am jëbéer muy jaam bu jigéen am moo tax mu teqal leen mu ne nag fekkee ni kooku day góor su jigéen jëkkëram fase ko kon bu dee koy gis deret yetti laab la war a am door a mën a wutiwaat jëkkër moo xam nag day julit moo xam day ji taalit diine yahood mbaa diine nasaraan bu fekkee nag moom day jébeef moom kiñ fase day jàmbu jigéen man naa muy jàmbu jigéen bu sotti man naa mu laal ci njaam ki ñu ko rek lennam bàyyi lennam kooku bu fekkee dina gis deret iddaam yaari laab lay doon maanaam buñ ko fasee fekkee daa ma jëkkër jëkkër ja fase ko yaari laab lay doon bu amee yaar laab rek bu amee yaar laab rek daal di mën a sëywaat moo xam gor su jigéen saa moo xam jébéer baa duñu seet ba xam jëkkëram ja ko yoroon ba fase ko gor la wala jaam la moom jigéen ci bopp la ñuy seet rek moom bu dee goro ñu waxal ko yetti laab ndegam dana gis deret bu dee jébéer ñu waxal ko yaari laab waaye léegi nag amatul teqale ñëpp rek gor lañu képp ku ñu fase daal te fekk ngay gis deret moom ay laab ngay waññi ba am yetti laab rek daal di mën a wutiwaat jëkkër bis borom ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata qurooyin yetti yetti quroo yooyu baatu alqaru daañ jàng xaraw daañ jàng quru yëpp benn la dana firi laab di firi mbërëg su ko defee nag ci yoonu Maalik moom dañ koy firi ay laab nga xam ne kon jigéen ji ay laab lay wàññi suñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day wàññi googa laab muy genn su ci saatee deret ba laab muy yaari laab su ci saa si deret nag ba laab mu daal nekk yetti laab waaye nag laab googee nu wax ne mooy laab gu ñetteel ga kat bu tolloo ca laab ga di su ko mayee fa saasa dañuy bàyyi ba deret topp ca bu ci deret toppee la ñuy xam ne laab gu ñetteel ga mat na bu ñu fasee jigéen ji ci jamono yi gis deret nag moom day bàyyi ba deret jooju jeex laab ga ca sës ca lay tàmbalee wàññee nga xam ne kon moom dana dem ba gis dereti ñeenteelam ñu door koo saña maye mu leeral foofu ne bañuñu ñu maye jigéen ci jamono yam gisee deret déedéet dañuy bañ kay ku fase jigéen ca ba mu gisee deret waaye bañuñu ku maye jigéen ca ba mu gisee deret bu fekkee kañu fase daa ndawe ba du gis deret mbaa mu magee ba du ko gisati kon iddaam yetti weer lay doon moo xam nag day gor moo xam day jébeer ba tey nu leeral foofu ne bis bañ ko fasee dañuy seet waxtu wa buñ ko fasee ci njëkk fenku fajar moom dana wàññiwaale bis booba maanaam daal bu jant bi sooyee jëm ci ñu nodd salaatu bu fekkee diggante boobu lañu ko fasee kon dana wàññi bëccëg bi nga xam ne ci la jëm tàmbalee ci ñetti weer ya waaye nag gannaaw bu fajar fenkee la ca dale ba jant ba so bu ñu ko fa fasee moom jigéen ja bis booba du ko wàññiwaale ca ñetti weer ya bis ba ca toppaat ci lay tàmbalee wàññi ñetti weer ya kañu fase moo xam day gor moo xam day jébéer bu fekkee day gis deret yi jàngoro te du ko mën a xàmmeeg deret dëgg-dëgg kooku faw dana toog diru at door a mën a wutiwaat jëkkër ndax dañ koy toogloo juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu juróom-ñeenti weer ya matee ñu tegloo ko ca ñetti weer kon mu daal nekk at te bu fekkoon ne mën naa xàmmee deret yi jàngoro ja ak deret ju wér ja nekkul jàngoro kon moom bu gisee deret ju wér ja danañ ci xamee ne moom mi ëmbut mu daal di mën a wuti jëkkër waaye nag mëntu xàmmee nag yaari deret yi moom na toog diiru at ba tey koo xam ne daa gisul deret te la ko ko too gis kat xamu ko amul benn sabab buñ ne moo tee mu gis deret mbaa boog la tee mu gis ko mooy tawat ji ko dal ci yaramam kooku ba tey at bi benn la na toog at mu mat sëkk door a wuti jëkkër nga seetlu ne daa tudde at ma lépp idda waaye déedéet juróom yenti weer ya ak laablu lay doon yetti weer yañ cay teg nag ba mat at mooy doon idda ja dëgg-dëgg te kat bu toogee loolu ba noppi tam yëg ci biiram li nuru ne ab ëmb la xaw a sikki sàkk ne ëmb naa ëmbut dañ ko wax ne ko toogal rek ba kere ngay xam ne yow mii ëmb nekkul ci yow loolu na mën naa yàgg ba mat ñeenti at jenn wax ji mbaa juróomi at ndax gën jaa yàgg ëmb moom juróomi at mooy wax ji gën a sori am ñu wax itam ñeenti at kon jàppal ne jigéen ji nga xam ne doon na iddawu am lu mu yëg ci biiram loo xam ne xamul ba xam doom la am du doom amu ci lu ko wóor kooku moom day toog rek ba kere muy toog ñeenti at mbaa juróom loolu mooy mooy gën jaa yàgg ëmb moom xam ne ëmb mënu ko am te judduwut idda yi ku ëmb moom moo di rek juddug ëmb ba mu ëmboon su juddoo rek iddaam jeex na moo xam dañu ko fase moo xam jëkkëram dafa faatu moo xam day gor moo xam day jébéer moo xam day jullit moo xam daa bokk ci diine yahood mbaa nasaraan jigéen bi ñu ko fasee te jëkkëram ji jotiwut ak moom dara ak may rek moo doxoon seen diggante kon jigéen jooju idda wóoru ko danañ ko mayawaat fi saasa ba tey bu neexee ko ko takkoon mu wëlbati ko takkaat ko ndegam la mu ko fasi matul ñett kon jàppal ne kuñ fasee te moo kañ ko mayoon jotiwuñu woon dara lu may buñ ko rek fa jaaroon waaye jotiwuñ dara kon bu ko fasee rek fi saasa mën naa daal di wutiwaat jëkkër waaye nag kuñ mayeen jëkkër far jëkkër ji faatu du ko tee iddawu iddawu faatu moom loolu aju woon naa teqali foofu nee na bu fekkee ne jamono wi taalife la jigéen ñi nekk ñaar gor ak jébéer kon nee na bu dee gor moom jëkkëram faatu iddaam dana war a mat yeenti weer ak fukki fan di seet nag ba xam moom jigéen jooju gone la wala mag la moo xam jëkkër ji wéet naa ak moom moo xam wéet ak moom moo xam jullit la moo xam daa nekk diine yoxoon ba nasara lu mu ci mën doon daal nekam gor la rek moom dana war a iddawu diirub ñeenti weer ak fukki fan su amee ñeenti weer ak fukki fan nag te nga xam ne gis na deret ci biir ñeenti weer ya fukki fan kon mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne it daa toll woon ci nàmpal nàmpal gaa tax gisul deret ba tey mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne itam moom day am ñeenti weer a fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw ni ki moom dafa aadawa woon juróomi weer yu ne lay gis deret te naka mu ci deret ba laab ca jëkkëram faatu kon xam nga bala koo gisaat am juróomi weer te kon dana weesu yeenti weer a fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw ku mel ne kooku ba tey bu yeenti weer yaa fukki fan matee rek mënees na ko daal di mayewaat yooyu yëpp daal moom gis nga ne ngir bi wax bu jeexee rek mënees na koo daal di mayewaat waaye nag bu fekkee day koo xam ne gisul deret ci diirub yeenti weer yeeg fukki fan te it la tee mu gis ko mooy jàngoro ji nekk ci yaramam mbaa daa mënta xàmmee dereti jàngoro ak judul jëj jàngoro ne moom mi ngi gis deret waaye mënu leen a xàmmee mbaa boobu ñàkkam ñàkk a gis deret daal moom xamuñu dara dara dara lu ko sabab yooyu moom ñoo bokk balaa mën a wutiwaat jëkkër rek faaw nañ bàyyi ba mu gis deret mbaa bu fekkee gisul deret mu am juróom yeenti weer ndax bu amee juróom ñeenti weer moom bu ëmb nekkee ci moom dana war a feeñ su amee juróom ñeenti weer nag kon te gisul deret waaye yëgul ci biiram dara dara dara lu muy naa tabli naa ëmb laam du ëmb kon mën naa wutiwaat jëkkër waaye kat su fekkee am na juróom ñeenti weer waaye am na lu mu ñaaw njort ci biiram ne ab ëmb la kon lañ la waxoon rek day toog gën jaa yàggi ëmb te gën jaa yàggi ëmb mooy juróomi at mbaa ñeenti at ndegam mi ngi wóorul di ko boppam rek moom ci ëmb moom na toog ba àgg ci ñeenti at mbaa juróom juróom yi sax moo gën a wóor ndax moo gën a sori bu dee nag jigéen de jëkkëram faatu dafa ndawe ba du gis deret mbaa mu mage ba du gis deret mbaa sax yàlla def na jëkkëram jotute wéet ak moom ak may rek moo fi doxoon jëkkër ja faatu mu daal di war a iddawu ñii moom ku mu ci mën doon rek bu yeenti weer yaag fukki fan matee mën naa daal di séyuwaat amul dara dara luñ cay néggandiku nee na nag bu fekkee ne ka jëkkëram faatu day jaam bu sotti muy jaam bu jigéen bu sotti mbaa mu laal ci njaam kon day am yaari weer ak juróomi fan muy xaajub la nga waxaloon gor sa jamono jam doon taalif yi nga xam ne dañ doon teqale gor ak jaam kon jaam bu jigéen bu jëkkëram faatoo iddaam mooy xaajub la gor daan toog te loolu mooy ñaari weer ak juróomi fan waaye moom it da ngay wax ne bu fekkee ne daal jëkkëram ji faatu jotewut ak moom dara daa faatu rek mu war a iddawu mbaa boog moom dafa ndawe mbaa mu mage ba du gis deret kon mbaa boog far na gis deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan mbaa la tee mu gis ci deret mooy nàmpal yooyu yëpp kon daal nañ mën a wutiwaat jëkkër ci bi mu amee yaari weer ak juróomi fan waaye nag bu fekkee ne moom jëkkëram wéetoon naa moom te it dana la gis deret te gisul deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan kon kooku na xaar ba am yetti weer muy gën a wóor na dem ba mat ñetti weer moo gën a wóor te it bu amee yetti weer ya te wóoloo di ko ci boppam ëmb day aajowoo mu toog juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu toogee juróom-ñeenti weer nag te wóor ko ni moom mi dara ëmb nekkul ci moom kon mën naa wutiwaat jëkkër bu juróom-ñeenti weer ya matee it te wóoloo di ko ci boppam ëmb daal di war a xaar gën jaa yàggi ëmb te moo di juróomi at lee mu wax nag tàmbalee ko ci maalam tatab alkabiratu daatul xayd bi taxirihi moom gor su jigéen si ak jébbéer bi ñoo ko bokkule koo ci xam ne jeexal nga sa diirub idda te bu dee gor su jigéen si mooy yeenti weer ya ak fukki fan bu dee jébbéer bi mooy yaari weer ya ak juróomi fan koy xam ne jeexal nga diir boobu waaye gisoo ci deret te waxtu wa nga war a gisee deret daa ak seegut kon doo daal di wuti jëkkër fa saasa da ngay xaar rek ba ameetoo genn wóoroodi ko ci sa bopp loolu nag ma ngay amee ci nga toog ba yàgg nga gis deret mbaa nga dem ba am juróomi yeenti weer soo gisee deret moom dana la wóor ne yow mi ëmboo soo amee juróom-ñeenti weer itam bu ëmb nekkee ci yow war naa feeñ waaye nag nu fàttalee ne bu amee juróom-ñeenti weer ya yëg ci biiram nag loo xam daa jàpp ne ab ëmb la maanaam daal ragal na ne ab ëmb la kon kat dañ koy xewoon faaw mu toog gën jaa yàggi diirub ëmb te mooy juróomi at ñu bañ a fàtte ne saa yu jigéen ji ñaawe njort ci ne moom mi ëpp ëmb nekk ci biiram li fekk mu ci am lu ko wóor rek moom du sañ a wutiwaat jëkkër xanaa mu dem a dem ba toog diirub gën jaa yàgg gi ëmb te moo juróomi at su boobaa nag moom ñu xam ne loola du ëmb ndax gën jaa yàgg gi diiru ëmb moom mënta weesu juróomi at gën ngaa sori loolu da ko wax rek waaye sukkandikoo wuñ ko ndax daa wax ne jébéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naa moom bu fekkee du gis deret ngir ak ndawee ma tax wala ngir ak magee ma tax ndegam jëkkër wéetoon naa moom door a faatu rek faaw dana toog ba am ñetti weer door a wutiwaat jëkkër wax jëkkër a wóor nag mooy kooku ndegam moom la ko tee gis deret mooy rek ak ndawee mbaa ak mage bu xasee am ñaari weer ak juróom fan rek doy na sëkk mën naa daal di wutiwaat jëkkër ka aajo wa mu xaar ñetti weer kay mooy jébbéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naag moom laata muy faatu te jëkkëram daana am doom te moom mii diirub yaari weer yi ak juróomi fan gisu fi deret benn yoon moom tool nag gis deret te gisu fi deret benn yoon te jëkkëram wéetoon naag moom te daana am doom kooku kay mooy aajo wa mu xaar yetti weer te bañ a yem ci yaari weer ak juróomi fan kon nga jàpp teqale boobu